d'habitants fukki lal ak ñaara fi newoon loolu musiba la musiba bu garaaw a garaaw la waaye ba léegi loolu mun nañ ko jàllare parce que mun nañ ne jamono jooju Covid bi dafa bett nit ñi waaye gannaaw nag léegi xam nañ ni feebar bi ñëw na te feebar bi du fi jóge tey lan la ñu waroon def la waroon def mooy xaalis bi ñu dajale ne moom pour yóbbu ko ci Covid la. Nous warona waroon orienté ci mbirum santé est-ce que xam ngeen ni 1000 milliards 112 milliards rek lañu ñu ci santé presque 10 112 milliards 800 et quelques milliards yi Passer, passer, passer nañ ko ci ay mbir yo xamné ne kenn xamul fu mu dem 112 milliards lañu ñu ci santé ci jamono jo xamné ne santé lañu soxla lool japp ngeen ni lu jaadul 112 milliards ci 112 milliards yoyu Aujourd'hui, jii 59 nous avons 53 nous ne 59 nous avons sax 60 barki même si nous ni 60 lits de réanimation ça veut dire que 48 lits de réanimation rek la ñu jënd ci alors que Réumi... mi wala àdduna mi ngi am problème boobu loolu calculer 1 milliard 450 millions la pour jënd ay lal alors que am nga.

Euh, euh, ay ay ay outils de test de dépistage rapide nga xamné fune fu nañ fi mëna dépister tay est-ce que yone la Sénégalais dem def dépistage tok 72 heures wala lu ko ëpp té amul résultat ñu bari def nañ dépistage balaa seen résultat gën dé nañu lool est-ce que yone la nga jël xaaliss réew mi dem profito ci parce que ñom lekk rek seen yone wu ci la ca des ku doon sukuraat sax ñu fekk la ngay sukuraat euh, sa xaaliss nek sa poste ñu roc ci xaaliss bi bay la fa nga sukuraat loolu musiba la cim réew donc loolu mooy seconde irresponsabilité bi ñetteel bi mooy ci jamono jooju moom Macky parce que soo naan sa askan dama bëgg ngeen def ay sacrifice dama bëgg ngeen takk seen biir parce que mbir mi jaxasoo na yow yaa war a njëkk a joxe exemple bu baax waaye yow doo bañal sa bopp dara jamono ji situation bii nekk nga xamné kenn noyatul moom mu jël 60 milliards dem jënd avion avion bo xamné so ci si tay mën nga tok un mois 2 mois 3 mois do ci dugg te jamono bi mu tok yëpp yorul avion mat na un mois 1 an et demi mi ngi don tukki nga jël 60 milliards pour yow kese nga dem jënd avion xam nga 60 milliards ñaata lits de réanimation la ci 60 milliards mun nga ci am 2000 lits de réanimation 2000 lits de réanimation danaka tay suñu amone 500 lits de réanimation rek le du parce que ku am problème bi rek mën nga tout de suite prise en charge ku ci am cas grave rek mën nga ko 500 lits de réanimation rek suñ ko 59 lits de réanimation lañu am 40 yaangi Dakar 19 euh, ci des sédélé ci ci ci ce n'est pas opérationnel ça c'est un crime contre le peuple sénégalais.

n'est dans le besoin de yaa ngi déjà ko Ya hay lepp 5000 romb la dem jënd euh, iPhone iPhone xawma ñaata à a a 1 million di nga ne daf may font kon yow da ngay da ngay da ngay vaccin da ngay nañ la bal bor bi chaque jour ce discours une solidarité internationale pour le financement des économies africaines sa xam-xam a des solutions endogènes pour financer ton économie ce da nga koy yelwaan ba pas sa de procédure parce que un avion cool ne un de bateau de plaisance moi galu un bateau de gal jël di de wala mo noyi noyyi eeru eeru géej gi daal di dellu ñi 3 milliards ñi nan 6 milliards ci jamono joju nga jël suñu xaalisu rew jël ci ay millions wala ay milliards yépp sénégalais yi melni ay xar nan ma ngi leen yobbu yóbbu ma ngi yóbbu maa ngi leen yobbu yóbbu Fouta loolu mooy irresponsabilité Macky Sall li def c'est un crime contre le peuple sénégalais irresponsabilité incompétence ak déni la bolé motax man dama ne wax ko depuis longtemps bu ñew rek day yok ci bi fi newoon Macky Sall n'est pas légitime à diriger ce pays parce que su doon dafa yem ci incompétent rek ñu ne garaaw mënul waye bu ci nak euh froideur ñak yéeg sénégalais ñak ñàkk sénégalais yi problème bi day gëna a ba tax nak li lépp ñu wax ni da nga ciy boole yeneen ak yeneen yi wane ni Macky Sall moom mbirum mbirum Covid bi mosu koo intéressé parce que bu leen fàtte ci jamono bi sénégalais yi jaaxle ñu ñu rag ñu tiital leen ba kenn ñemeetul ne leen kenn amatul génn au delà de 19 heures kenn amatul génn te takkoo masque te loolu yépp di woon mesure yoo xam ne lu ñu mën a dégg la tëj jàkka tëj église tëj tëj tëj ci jamono jooju moom mu ngi signé ay décret

jamono joju la am sénégalais yi nañu nañu nelawatuñu ñom politiciens yi leen intéressé moy mburu c'est-à-dire même sen façon de parler mi ngi à la justice, nous mburu ak soow poñse ay wax yu ñak fayda te bañ koy def dañ ñewon xeex Covid motax Covid ni anañu kii gisuñu ko kii ñemewul wax mburu ak soow mooy séddoo xaalisu réew mi ci jamono jooju lañu gis mu voté fi ay loi yoo xam ne ñëpp xam nañ ci mu jëm loi ne sénégalais léegi ku ne méet terroriste nga daal di modifier code électoral bi pour gën a mun a xañ ay sénégalais seeni àq pour ñu mun a taxaw jàmmarloog moom kon responsabilité makisal de il est le seul et unique responsable de ce qui se passe dans ce pays Pourquoi pourquoi bu ko suis un may grand frère sama docteur Seydi Si wahni, wax ni responsable lii la gestion politique catastrophique de cette crise personnel médical ce n'est pas la gestion médicale et technique Je ce un suñu personnel médical Quel est le fay liggéey bi métti na risques yi bari na waaye accompagnement minimal bi ñu waroon am am amuñu ko te ñoom ñëpp xam nañ ko ku ci wéet ak boppam wax ko koo ci wéetal mu wax la ko kon ñun nekkuñu ci politique politicienne ba tax nag lii daf ñu andi ci constat bi ñu wax mooy situation bi mbokki Sénégal situation bu garaaw la du situation bu tuuti état bi démissionné na état bi lajj na état bi wane na cuuneem waaye ndax dafa war a tax ñun ñëpp ñu démissionné déedéet parce que du état bi la bakkanam di rot waaye ñun ñii sénégalais suñu bakkan di rot bu kenn nga la waay weddeeti feebar bi parce que kenn ku ne ci ñun am nga ku la jege ku mu dal kenn ku ne am nga ku mu jege ku bakkanam rot man mi de semaine passée beulé rek am nañ ci ñaar ci suñu biir parti té kenn ku né am nga ko kon buñ ko sàggane buñ ko néwal parce que fièvre bu am la té day rayé té anam gi mi rayé mo metti ndax di ñak di ñak euh, ngelaw goo noyyee sa poumon di wër ngelaw go noyé nga ngay sifoké ba jaaré non dem lolou dafa metti

duma yem ci wax li nga xam ne mooy responsabilité Macky du ma yem ci wax lan mooy lajju nguur gi su dee mënuma cee boole ay proposition parce que dama leen wax ci njëlbeen ba ni la ma fas yéene waxtaan ak Sénégalais yi mooy tey man su doon maay président de la république naka laay gérer situation bi bi bi ñu ñuy dund li yàqu yàqu na

Si li ñuy wax en amont je ci njëlbeen ba gëm confinement waratul am Sénégal confinement de solution bi État de solution bi mooy benn borom xam-xam yépp nee ci réew yu confinement bi am résultat parce que kër yoo ne fa demee di nga fa fekk fukki nit ak juróom kër googu ci bopam mun na doon li ñuy wax cluster moy mom ci bopam mun na doon foyer bo xamné ne fa la feebar bi di di développer ñaaral bi mooy mënatuñu génne ñom fonds Covid 19 ba naan dañuy joxé ay kit alimentaire amatuñu ko passer passer lañu xaalis bi te leb naa leb lebaleb ba kenn bëggatu ko lebal dernier euro bon bi mu dem lebi dafa plafonner léegi capacité am te àdduna bi nag na Sénégal di xam ni réew boo xool tey moo moo la gën a soxla boppam ndax ñoom ñëpp ñi ngi xeex ak feebar bi di génne ay milliards d'euros ou de dollars pour jënd vaccin bi di def euh, di di di jàkkaarloog crise économique boole kook ay catastrophe naturelle te barki démb rek Allemagne bi glissement de terrain yi amee nañu il faut 5 milliards d'euros pour Allemagne reconstruire kër yi fa yàqu kon réew yooyu tey. tal nañu leneen lu di jox ay nit xaaliss ñu jëndi avion te li bokk na ci jàngat yi ñu ci war a am mooy lajj gi ñu lajj ci wàllu économie parce que ci wàllu économie soo mënul créer li ñuy wax économie endogène mooy fexe ba li ëpp ci li ngay soxla nga produire ko sa réew su choc exogène ñëwee mooy su problème amee ci àdduna comme yow da ngay jéggaani lépp yow yaa koy gën a yëg ñeneen ñi tey Sénégal 80 pour cent li ñuy consommé dañ koy jéggaani 64 3 pour cent notre économie secteur tertiaire la secteur tertiaire du moom mooy supporter choc endogène ay euh, exogène c'est-à-dire secteur tertiaire mooy téléphonie Sonatel Expresso et cetera wala banque yeeg assurance yi wala yu demee noonu loolu du mooy supporter choc exogène nga am mbay mu dëgër am càmm gu dëgër. am y bu dëgër am artisanat bu dëgër am ay industrie transformé loolu lay permettre nga supporter choc yooyu te dañ Sénégal ba nga xam ne tey yelwa rek a def ñetteel bi euh, sénégalais ñi ngi ci te lenteeg jafe-jafe yi mooy échec yi ñu am ci suñu politique économique koo mënul jox liggéey mënoo ko jox salaire mënoo koo faj kooku soo ko nee tëjul sa kër bëgg assassiné. warul am te waruñu koo nangu kenn waratu fee confiné Sénégal yi waaye loolu pour mu il faut que kenn ku nekk ci ñun sénégalais yi waxal man

dama ko ñaan sénégalais ngir yalla parce que amul dara lu ko upp efficacité nak ñi vacciné wu so démé Europe tay ku vacciné wu soy génn da ngay tak masque vaccin bi téréwul dit nga tak masque kon lolu moy première mesure na ñepp ñëpp wat ci tak masque yi lu ci bi moy li nga xam ne mooy distance yi ñu war a am suñu diggante nañ ci gën a góorgóorlu it ñetteel bi mooy ndaje bu dul ndaje bu obligatoire nañ ko moyetu ndaje bu dul ndaje bu obligatoire nañ ko moyetu su ma nee obligatoire mooy ndaje bu dul farata nañ ko moytu farata nag day varier selon les contextes parce que dit que... diine ci bopom mo la né dem julli ci juma farata la waye buñu démé ba ab bo xamné ne na vous nit ki ci juma bi wala ñu guerre ba sofa démé ñu ray la ñu la mën julli sa kër vous farata gi nañ ko kon ñun jël suñu responsabilité xam ni mën nañu gagner virus bi gagner nañ ko ben yoon gagner ko ñaar yoon fa ñu jaaroon ba gañe ko benn yoon ñaareen suñu suñ fa jaaraatee gañe ko donc bu ñu ne ah lii daal ay wax rek la ku nekk bàyyeeku nañu respecter mesure distanciation yi nañ ko respecter ñun de ci li ñu concerné li nga xam ne lu ma waroon def la man Sénégal yëpp doon ko xaar muy nemmeeku tuur bi ma waroon yóbbu ma wër Sénégal yëpp ah suspendre naa ko ba jëmmi jamono ba situation bi gën koo permettre

lépp li nga xam ne du lu jàmp ci wàllu chirurgie mooy opération yi euh, ak yi nga xam ne ay hospitalisation programmée la te jàmpul yooyu yëpp nañ ko suspendre lal yooyu nga xam ne moom la ñu waroon occupé ñu transformer ko def ko ay lal yoo xam ne day mun a dalal ay nit yoo xam ne dañoo am jàngoro ji ñetteel bi mooy.

parce que souvent dañuy wax dañuy concentré wu trop ci cas grave yi cas simple yi ñu xaw leen a sàgganee ñi nekk ci kër yi ñii di tëdd ci couloir yi cas simple yu bëri mooy mujj nag ci ci sàggane bi ko sàggane mooy mujj nekk cas grave ñetteel bi mooy euh, saalu réveil yi nga xam ne ci bloc opératoire yi ak centre de réanimation yi ñu mettre ko à la disposition gestion Covid bi ñi nga xamné ñoy médecin anesthésiste ak réanimateur yi mun nek fofu topato, les cas graves ñeenteel bi moy ñu ñu approvisionner réew mi en oxygène mbokk yi gatché la ñu né 21e siècle Sénégal dafa am problème oxygène ñi génn di wéddi way lu am la Sénégal dafa am problème oxygène kon nañu approvisionner réew mi oxygène bu doy te ñu fexe ba oxygène bi bu mu manqueeti juróomeel bi mooy ñu yokk lits de réanimation yi dañ ko yokkaat bu baax a baax a baax moo xam fu muy jee xaalis bi nag loolu day topp day suñu juróomeel benneelu proposition mooy comme dañoo soxla xaalis yàq nañoo yàq yàq yàq ba tey fu ñu jëlee xaalis dina leen të mooy lii nga xam ne institution yu amul benn njëriñ la ci réew mi benn njëriñ conseil économique social HCCT euh, ak xawma yan nañ leen supprimer jël xaalis boobu jëndee ko ay lits de réanimation parce que amu fi njëriñ kan fii ci salle bi moom mun a ban njëriñ la institution yooyu am kan moo mës a lire seen benn rapport kan amu fi njëriñ juróom-benneel bi mooy ñu gën a développer test rapide yi fexe ba mu accessible parce que du yoon ab sénégalais yéeg dara ci yaramam njort ni lii la nga dem def test te xam nañ ni variant bi dafay développer rapidement ci dernier jour yi ñu naan la xaaral ñetti fan ñeenti fan juróomi fan pour nga jot résultat test bi loolu du yoon juróom ñeente ñett ñaareel bi mooy masque yi ñuy takk Forum bu ci mbedd mi gis ay masque ma ci interpeller nguur gi il faut ñu teg benn système de collecte et de recyclage de ces masques parce que masque yi li gars yi xamul mooy du c'est pas biodégradable mooy du du gaaw a yàqu ci suuf si masque boo ci gis il faut 400 ans pour mu dégrader wu moom ak mbuusee parce que matière bi ci nekk la comme am na tey ay société ay entreprises yoo xam ne loolu la ñuy liggéey

ak ñi leen di suuli ñi leen di sang kon ñaata nit la virus bi mun a contacter kon tous les cas suspects dañu war a def prélèvement ak analise balaa ñu koy yóbbu naan dañuy suuli su ko mënul nekk nañ def protocole sanitaire obligatoire man de dem naa keroog ci benn dëj waaye bu ma gisee ñu teg kees bi nit ñi génne dugal suul te ñu ngi doon laam-laame naan moom la wala du moom sama xel tey na te loolu tam dañ ci war a jël ay matuwaay. mu des nag fi may daanele la jëm ci ñàqu bi la jëm ci ñàqu bi muy vaccin bi faw ñu wax ci ndaxit it ñu bëri woon nañ ma ne mu waaw bul wax ci vaccin bi c'est sensible homme politique lu xew ci réew mi te war a concerner waa réew mi yépp da cee war a gëstu loolu moo la ci ëpp xam-xam li ma ciy njëkk wax ci vaccin bi mooy jàngat gi ñu war a njëkk am ñun africain ci lii mooy tappale yorul am réew seetlu leen ni àdduna bi yépp continent yépp produit nañ vaccin ba mu des Afrique Asie produire na vaccin ndax Chine am na vaccin Inde am na vaccin Europe produire na ay vaccin euh, Amérique produire na ay vaccin Afrique mënul produire benn vaccin

ñu doon dugg ci kaar yi ñu leen di yóbbu Fuuta ak di leen yóbbu Kaffrine nañu xam ni xaalis bi leen waroon faj xaalis bi leen waroon a jox liggéey seen doom xaalis bi leen waroon tabaxal ay tali xaalis boobu rek la ñuy jël di leen di leen dugal di leen yóbbu perte buy am yéen rek a ci perte ñoom perte ñu ci dara ndax jógewul seen poos ngir yàlla na sénégalais yeewu benn yoon réew caaxaan du ko far waaye caaxaan gi du rek caaxaanu homme politique yi dafa am lenn ci askan yi ñu leen topp ci loolu moy premier jangat bi ñaaral bi moy il faut ñu accepter débat di am parce que réew mi dafa am lu fi am lo xamné man kenn duma ko mën a opposer mooy su dara amé rek ñu né ñom ñi lañu bëgg ñëpp xalaté fo jaar ñu né la ñu joxañ la ne ni nga wara xalaté ba paré nak def benn propagande médiatique bo xamné ne nit ñi sax dañuy ragal wax ndax ko wax ñu né waaw mom de dafa contre li wala mom de dafa li mais demal France demal Angleterre demal États-Unis demal man chaque jour damay tok tal chaîne yi di seetaan suba bo ngone jot ay débat la médecins yi tok débat homme politique yi tok débat ñi né d'accord n'a, ñi né d'accorduma c'est ça non la société di doxé té ñu wara nanguit ñi no wara nanguit ni. Sénégalais yi dañu am ay questions ñom ñu wara a génn tontu question yooyu sénégalais am nañ sañ am ne ah man de ñàkk bi bëgg na ci xam li bala ma ci dugg bëgg na ci xam Nous ñun du ay ma xam dañ lay rek ne la ay wax limay wax nak lima ci gën bëgg man contre mon vaccin contre mon vaccin de biñu juddoo ba léegi ñoo vacciné wu te vaccin yooyu amul benn buñ ci Sénégal à ma connaissance Voilà, docteur donc problème bi du est-ce que contre na vaccin wala contre ko gëw moo it ni vaccin bi complot la ndax bu doon complot ñoo ko defar duñ ko xëccoog ñun parce que xel day loolu lay jëriñ bu dee ñoom ñu ngi koy xëccoog ñun ba ñun mënuñoo jot ci vaccin bi saabu veut dire ñoom jàpp nañ ni vaccin bi lu baax la ba tax ñu koy def kon loolu dama bëgg mu leer balaa parce que sénégalais da ngay génn fi rek waaw moom nee na moom ne déedéet damay wax lu leer contre le principe vaccin. adula dafa dox dafa et numuy doxé dafa gaaw science dafa dox médecine bi 20 ans 25 ans 30 ans ci gannaaw kula mënon waxon opération EV nga né xana ci wëru waye tay ñu koy def kon vaccin it boudé ñu ko défar ci 15 ans 20 ans science mëna dox bañu défar ko ci anam bu gëna gatt waye buñ ko nak kenn ku ne balaa nga koy ñàkku am nga sañ-sañu laaj li nga xam ne lu lënt la ci sa bopp am nga sañ-sañu laaj ñoom lii seen responsabilité mooy ñu tontu sénégalais ci laaj yooyu dalal xelu sénégalais waaye kenn amul sañ-sañu laaj ñépp nañu dem rek vacciné wu la lay couvrir la lay couvrir parce que su dee décideur politique nga boo waree engagé sa peuple ci dara war nga xam ni lii à cour moyen et long terme lan la ba léegi aw tontu ci laaj boobu laaj naa docteur yu bëri ñi ci gën a kii daal nee nañu ñoom li ñu jàpp ci li ñu liir mais du catégorie mooy mën na nekk entre trois mois et sii mois ñetti weer ak juróom-benni weer soo déggee loolu mooy ku vacciné wu tey toogaat weer wala ñaari weer jël sa deuxième dose li ma jàpp mooy buñ ci tegee juróom-benni weer wala lu teg lu ci nekk tegu tuuti. war ngaa dem ñaquwaat kon nañu xam ni cycle bu ubbeeku la peut-être loolu tax Pfizer dugal autorisation pour troisième dose te démb si guddi laay seetaan journal gis ni Israël autorisé nañu pour ñu joxe troisième dose kon laaj yooyu am nañ sañ-sañu laaj ko parce que dañu dañu war a xam li ñuy dugg lu mu doon ak fu mu ñu jëme ñaareel bi mooy vaccin bi ku ko ñàkku ndax mën nga jëlaat virus bi léegi tontu bi ñun ñëpp am nañ ko nit dina ñàpp ñaar virus bi ñëwaat dugg ko léegi nag ñi ngi laam-laamee est-ce que su ko duggee mbir wi da da da vaccin bi da koy néewal doole ba du ko bu fenn fi am déet loolu nag ay étude clinique dinañ ko prouver am déet mais pour le moment li leer ba leer mooy nit mun na ñàpp jëlaat vaccin bi ba ba taux de couverture bi nga xamné dañ ñaan ñi naan 60 ñi cent naan 70 ñi cent naan 95 moy vaccin bi boko ñakko ba nopi téeméer yu ñu ci ñak selon taux de couverture bi amna ci 80 yo xamné dañuy réagir ak 20 yo xamné yoo duñu réagir way xanaa lolu amna sañ-sañu laaj ko tekkiwul dama contre vaccin lolu sénégalais mom lañuy laaj euh, bi may jaanelee moy ndax vaccin bi day résister ci variant yu bees yi parce que gis nañ ni affaire bi dafa mel ni moom fi mu ne ñu ngi ci cinq variants yu bokkul ñaari mujje mooy delta bi ak lambda bi nga bi ñu ne moo nekk Amérique latine xamuñu ndax ndax euh, d'ici quelque temps ñu ne yeneen variant ñëw na gis nañu ay réew yoo xam ne demoon nañu ba vacciner 80 pour cent de leur population lu mel ni Seychelles mu jël vaccin chinois bi mais variant indien bi mu ñëwee mu ngi fay def ay ravages parce que étude bi na ni variant variant bi ñu am euh, euh, euh vaccin bi ñu vacciné wu variant variant euh, Afrique du Sud ñom dañu AstraZeneca adapté ak variant Afrique du Sud bi kon yoyu ay question légitime la Sénégal laaj bëgg Sénégalais tontu wax Sénégalais lu question parce que ab peuple boo ko bëggee defloo dara da ngay dalal xelam ba tax ñun li ñu jàpp mooy euh, loolu yëpp boo ko boo ko seetloo nga boole ci ni amuñu lu doy ci vaccin ñun amuñu lu doy dañuy yelwaan vaccin réew yu mag yi sax ba léegi dese na leen tuuti boo seetee statistiques yi nee nañu ba bi may arrêté. Euh, euh, recherche semaine passée nous avons 865 000 vaccins nous avons vaccinés. 865 000 doses Oui, 865 000 doses 256 000 nous avons ci doses nous avons deuxième dose nous avons une mauvaise politique de vaccination parce que si avez 800 000 doses vous ngay vacciner 400 000, 400 400 000 pour deuxième dose Donc, parce que ça ne sert à rien que vous première dose une période de vous deuxième dose je préfère vacciner complètement 1 de ma population plutôt que de vacciner partiellement 2 de la population mais non, c'est élémentaire Nous est-ce y a politique de santé dans ce pays sur 800 000 cas, il n'y a que 250 000 qui ont une deuxième dose. Et comme la politique est désordonnée, tantôt euh, Sinovac, tantôt AstraZeneca, il y a réew après nous, andi la Johnson et Johnson suba nous andi Pfizer donc ñi avons AstraZeneca avons jël deuxième rappel euh, Pfizer Voilà, docteur donc comme nous avons am na fi ñi ni ñu jàpp mooy euh, ñun. waruñoo toppandoo ñeneen ñi seen politique vaccinale parce que feebar bi ni mu mel ni mu présenté wu fii bokkul ak ñoom waaye ñoom doole gi ñu am amuñu ko moo tax ñaar yi dinaa ko wax parce waruñoo forcer nit ñi vaccin bi waruñu forcer benn sénégalais vaccin bi ni ñuy forcer vaccin bi nag ñaari anam la mun nañ ko forcer indirectement mooy li ñuy wax passe sanitaire mooy dañ naan ah. ku mu neex nga vacciné wu ku mu neex du vacciné wu waaye ku vacciné wul dootoo dugg ci kaar ku vacciné wul dootoo dugg ci restaurant ku vacciné wul dootoo dugg ci bureau administration ku vacciné wul dootoo dugg ci jàkka xam nga loolu mooy forcé di nga vacciné wu. ñaareel bi mooy ñu ne nag léegi c'est obligatoire ku vacciné wul sax dinañ la tëj kaso dinañ la condamné wala di nga fay ay amande loolu waruñu warul am Sénégal waruñu koo nangu d'ailleurs mënuñu ko ndax ku amul vaccin mënoo ko mënoo ko def kenn. ñaaral bi mooy comme vaccin bi lañ ci am dafa néew nañ ko dans un premier temps li les personnes vulnérables les personnes vulnérables mooy mag ñi am 65 ans jëm kaw ñooñu nañ leen le vaccin bi en priorité ñooñu vacciné nga ne 18 ans ngay c'est quoi le projet finalement ndax dégg ngeen ministre de la santé keroog bi mu demee di jëli vaccin Johnson and Johnson bi nee na affaire bi dañ koy ubbi au 18 ans yow mag ñi si gu loon te ñoom ñëpp wane nañ ni 99 pour cent taux de mortalité li ci mag ñi la. ñi mu mën a rey ci ndaw ñi li ci ëpp 99 pour cent yi mooy ñi nga xam ne dañoo amoon yeneen jàngoro yu métti lu mel ni jabet yooyu ñuy pikiru wala obésité yu ëpp yi wala wala donc balaa ngay. xool ndaw ñi na nga njëkk a vacciner mag ñi sécuriser leen parce que xale yi ils sont immunisés à 99 pour cent wala plus loolu xel war na ko mën a nangu lii mooy yi nga xam ne lu ñuy yedd nit ñi la waaye di daaneel ci insister waat une fois insister ci ndaw ñi ngir yàlla nañu takk max yi nañ jël les mesures barrières parce que même suñu vacciné mag ñi ak ndaw ñi nga xam ne dañoo am facteur de comorbidité mooy dañu am yeneen yenn jàngoro suñ leen ñàkkoon ba noppi te nit ñi nekk jëluñu mesure barrière ba di dugalaat mbir mi ci ci kër yi même avec le vaccin mag ñi mun mun nañ ko jëlaat te ku ci amoon yeneen jàngoro mun na la faat kon nañu gën a góorgóorlu ci yooyu lii mooy li ñu bëggoon waxtaan ak yéen mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant. te di len wax ni waxtaan bi ci olof rek la ko fasiyene won def ndax euh, euh, lele bo bëgge def ci wolof def ci français dina guddu te japp nañ ni suñu waxe ci wolof ñi ci wara jot ñep nañ ci jot ñu ngi leen di gërëm di leen sant alaykum